al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki daara ji Ansaarul Xadim njiital sëriñ Xaadim mi ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baal àq ñëpp sëriñ Xaadim jërëjëf lañu fi andi tey moom am gi solo ëpp na te li ci gën am solo mooy dangaa far joxewaale ay solution yu ñu war a mën a jaar ngir am li nu bëgg loola mooy li nga wax ne soppi sa doxalinu réew ku mu jëralut ñàkk sa alal jëral la ñàkk sa temps jëral la ñàkk sa bakkan jëral la jëral la yi nga ci wax yépp ku bàyyi xel rek da xam ne danga danga wane ne loolu moom la war a jaral nit ñi ngir ñu am liñ bëgg waaw bu buñ ci àggul rek kon daanaka xeex bi jëru soobu ama am solo nag di ama am solo lool ndax eh, lii yëpp waxoon nañ ko ci jamono yi référendum ba yaakaar naa ne buñ ko fàttalikoo eh, raabita bi jamono yooyu liggéeyoon na ci liggéey bu ama am solo boo xam ne eh, man booba lancé woon naa ne Raabita bi ni ñu ci taxawee ci diggante niveau région Diourbel surtout Touba nañ ko lawal ci bànqaas yëpp waaye yàlla loola jëriñu ko def waaye bi mu jàllee gis naa ne e, jotaay yi doon amal ak yee gi ñu yee nit ñi jeexal gi mu jeexal ci région Diourbel xam moom dañ ko perte complètement loola bu fekkoon ne booba ni ñu ko waxee daara lim am ci mbooloo mi dafa bari lim ci am bu génnee dara da ci du des. Eh, kon daara bu jógee te def li war a def yee ñim am ñëpp bañ topp ci gannaawam waaw ñoom duñ ci dese dara duñ ci dese dara dara loolu suñ Babacar Mbuub danga ko xam ndax eh, am na benn conférence bu mag buñ ci amaloon ci mbaarum Daaru Xudoos ci jamono référendum yi ngir gindi nit ñi ak leeral leen loola damaa jël conférence waaye mel man mi képp ak ñi demee ne man liggéey nañ ci liggéey boo xam ne booba ci copier texte yi fépp foo gisee ku ku ñu am yaakaar wala ku kilifa wala am ndaje eh, nga leeral ko fa eh, bañ ñooñu nga ubbi seen xel loola li mu liggéey ci référendum yi bari na lool lool lool bu ko defee loola nag eh, système boobu buñ ko jëloon man li ma gis ne fi ne fi lañ war a jaar mooy bunt bi ubbiku ñu bañ fexeeti ba muy ubbiwaat ndax niñ ko waxee léegi rek sëñ Saliou wax na ko sëñ docteur Ndiaye Diop wax na ko maanaam lii moom fi mu ne dafa jot sëkk sëkk sëkk sëkk ñëpp ànd jëli ko fi waaw gannaaw ñëpp gisee ndaw nañ ko nag kooku moom man li ma xalaatoon mooy mbooloo yi fi nekk lu mel ne rabita lu mel ne eh, rawdu lu mel ne xidma lu mel ne ànd taxaw jikko yi ànd taxaw daara ak yeneen ak yeneen ak yeneen mbooloo mu ci nekk ñu waxtaan mu tànn ay nit ñu toll ci juróomi nit boo defee juróom-juróom yooyu ñu boole leen nag ñoom ñu daje nos faral benn bureau provisoire boo xam ne mooy tàmbulee dox ci ak i xalaat ci liggéey ci e, lii nañu def ba am yoon wu wér wu leer boo xam ne daañ mën a gindi askan wi seen bopp ba ñu xam ne ci ay caaxaan ak nax rek cee ñu dox te ñi nga xam ne ñoom ñoo ni wommat tam mm, dañ dañ ñu wommat ci seen nuñ maanaam noonu note rek eh, ndax eh, li soppi moom soppi la maanaam li feeg eh, jàpp ñu ne waa daara ak seeni partenaire seen xalaat yi ñu am war naa mën a doxal réew mi rek duñ dem fànn ndax gëm ne doxalinu tubaab ak tëralinu tubaab mooy doxal réew mi moo tax ñu jàpp ne ku jàng tubaab rek amoo lool la benn xalaat wala amoo ci benn benn fira te déedéet maanaam soppi soppi la dañoo war a soppi réew mi complètement même loolu ñu soppi ko soppi ne eh, ku jëngu tubaab rek jàpp nañ ne wóoru mën doxal eh, xel rek moom mooy li doxal te eh, li ñu am ci ay borom yi xam-xam même buñ doon tubaab bi li ci am ci ay borom xam-xam ndax ku mel ne Euh, docteur Ndiaye Diop mii docteur euh, Ousmane Guèye ak seeni ñu mel na ay mbooloo lañ ci am ñoo xam ne euh, li ñëpp xam-xam nañ ko te ñoo ñoom ñoo bokk pas-pas ñoo bokk ay gëm-gëm xam ne Sénégal mooy leen ñor maanaam njàngale mag ñi mooy leen ñor te it jikkoy tubaab ak xalaat tubaab dara intéressé wu leen ci tey doxuñ ja ak sun borom xam-xami diine yi Eh, mbooloo moomu bu àndee lu mënta tëral wala lu mënta soppi dafa amut kon gis naa ne fi ne lii eh, suñu xaadim li li li jaadu rek mooy ñu daal di fexe eh, copte ci al xibaar wal xidma ay nit ñoo xam ne dañ leen di jàppale membari xibaar wal xidma jël ci rabita jël ci maxadma xidma jël ci rawdu jël ci jël ci jël ci jël mbooloo mbooloo yi islam station yi nekk fu ci nañu tànn fa ñoo xam ne Eh, ñu am indépendant la ñu doon ngir ñu tàmbalee liggéey ci loolu eh, bu ko defee mm, def boo xam ne dañ fexe ba mm, mboolem fu ñu war a mën a doxee rek ak nu ñu war a mën a dox ci communication beeg organisation beeg mm, conférence yeeg lépp ñu not ko tër ko eh, fexe nag dox jëm ci ndax daara mooy réew mi réew mi moom bu ci daara génnee day jeex kon dafa am xalaat yi dafa leer ci bopp nit ñi rek waaye bis bu leeree eh, fu daal di jëm rek ndox ci ginnaawam ndax dafa métti trop jël say gëm-gëm jël say wëlër di ko sànq ci ay interpersonnel yoo xam ne kenn xamut eh, eh, lu mu doon ndax moom ñi nga xam ne dañuy bëgg a topp luwaay international yi ak di jël Eh, ni koy docteur Ndiaye ji waxee léegi yow li nga am ba ñoom ñu lay dabu si nga xam ne bëgg a jot ci yow eh, ñoom ña ko gis xamu na mu wëloolee yow mi ko moom nag nga ñàkk koo gis wala nga ñàkk koo fonk wala nga ñàkk xam ba tax eh, nga ci ko fa di daw ci loo xam ne yow dañuy ñëw ñëw jël sa li nga am di jox as tuut ba ngir nga kon di daw daw ci seen ginnaaw loolu kenn xamul noonu daal lii moom moom dinañ ko lool. xaar yi baax na lool daanaka amatul la si waxaat ndax xaar jiitu euh, ñu ci wax am gu am solo am gu am importance ak it ñàkk a jaadu doxalin yii ñàkk a lañ ci déggum doy na sëkk li des nag mooy fi mu ne dox jëm ci euh, yoon wi ñuy jaar ba am ko te am nañ ci nag ay cëslaay yoo xam ne yu mat sëkk la ndax na jëmm ci rek muy Seex Muhammadul Muntaxaa fekkoon dara moom rek lañu am ci cëslaay yi doy na sëkk sëkk sëkk sëkk ndax ku ne xam na ne ak njëlbeenam bi mu doo ko toog bokkoon na ci ay eh, xalaatam maanaam fexe eh, ba mm, jële fi eh, tërëlin yi nga xam ne mooy tërëlin yi caaxaan yoo xam ne dañ ko nota nit ñi rek waaye dara awu ci yoon loola dañoo dem ba ca biir xëy na ay ni ñu waxee rek ay nit dox ca biir ba gàllankoor ko ca waaye moom ñoroon na ko ñor koo xam ne lam yéene woon mooy takkale mboolem nit diine yi ak ñiy wax ci lislaam ak ñi ñi lislaam ñor ñu boole seen baat boole seen bopp di xàccandoo di dóorandoo kon kooku moom ku ne xam ne ne euh, lañ ci doon bëgg doonte am na ñu cee dox ba am luñ ca jéem a gàllankoor itam waaye pas-pas ba ak yéen yow maa nga xam ne woon ba tey kon kooku ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu dër dër laa yooyu rek doy leen sëkk sëkk sëkk sëkk te lii kat ñun ñii di ko waxtaane metti bu mu metti ak yëg guñ ko yëg eh, li ko li ko yëg ci biti eh, mu metti ci leen leen ci biti eh, kenn xaw num toll moom xalaat bi moom mu yëkkati ko rek moo tee mbooloo mi ànd ci noonu kon loolu moom jërul ragal jërul xalaat nañ nañ jóg dox jëm ci te bañ koo def muy mu mel ne yi fi weesu euh, débat ci nii waxtaan ci waxtaan ci wax rek balaa am ñaari weer kenn du dégg si bopp loolu moom euh, occasion bi nu am ni Sëriñ Saliou waxe léegi ñi nga xam ne taxaw nañ ba nopp muy ànd defar jikko yi euh, ñooñu lañu war a rek dooleel leen rek fexe ba jàkkle yi ñu sàkku ñu ñu am ko niñ ko waxee léegi itam docteur Ndiaye wax na ko mboolem parti politique yi eh, mbooloo mi bu yàlla doore muy taxaw war naa bokk ci lamu jëkk a def comme ci xool ngir ëllëngo yooyu itam na jëkka eh, na jëkka càmbar sa sa sa sa sa sa programme bu ko càmbaree lu mu ca gis loo xam ne xam ne ne lii yi nga xam ne si sikkus réew mi la yooyu yëpp ñu dindilalu ko ndax lay solo sa mooy nga gëm danga kooka day daal di gëm ni kon ëllëg si biir buñ ko falee itam wala bu bu bu bu ñu àndee ak moom itam ci dëgg rek lañ mën a ànd moom ci lu amal njariñ réew mi rek lañ mën a ànd moom waaye mënees naa gis nit ku am récépissé mel na programme yi la ca baax bari na waaye am yu ca ne ca biir yoo xam ne bis bu ko dooleelee it mën naa dem ba eh, doonaat cëw ci réew mi kon loolu lépp ci liggéey bi la bokk képp koo ci xam ne eh, dañ ci ànd ak moom itam lañ jëkk def mooy programme mu nañ ko jàngat xool ko la cay sikk sikk ñu din wax saak moom ba mu nangu ko dindi teg ko ne bu ko nanguwul nag booba ñu seet neen neen def waaye daal xalaat la yu solo yoo xam ne moom noonu jekk nañ ci joxe ci sun doole ak suñ xel suñ xalaat ak lépp loo xam ne laaj na ko te ñu man ko te euh, muy loo xam ne dana jëmale liggéey bi kanam euh, ñun loolu jekk ji ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu am di Moussa Diop Touba Diagne Touba waa jërë ngeen jëf